waa Djibo suñu papa dafa nekk ku nga xamante ne Sénégal ku nekk jóge na fi mais moom si ñuy wax si homme d'état dëggantaan nag homme d'état ba tax ñuy wax soo koy seet jàng seet ko si Djibo Ka li ma naan Djibo élèves yi dañoo war a jàng si moom. parce que ku nga xamante ne ministère ministère def nga ko te en général nag ministère yi nga xamante ne dañoo nekk si jaxas jaxasoo ministère yi nga xamante ne dañu comment dañu jaxasoo.

maa wax maa def lii maa wax lii nekk kuy denc ay secret tey ji ku laajoon jibo si affaire événement naar ya wala événement kii ya noonu jibo xam na si lu bari mais mosu ko wax yóbbaale na secret uteeg politique gu léegi nii dañ lay wàcce rek nga commencé la nga defoon yëpp nga enregistré ko woote pour déballer mais jibo ka kenn mosu ko dégg si loolu loolu mooy homme d'état donc ñii di politique léegi war nañu jàngaat tuuti si jibo ka xool nan la ñuy continuer parce nekk homme d'état yombul de yombul te Djibo nag euh, wax dëgg yàlla macha allah comme euh, ni ko sama frère assan waxee muy la coordonnateur fu mu jaar fu nekk bàyyi na fa trace su ñuy wax AGETIP Gaston Berger lu tax université yi yokk néegi bo Djibo loxoom a nga ca Sonatel bi ñuy wax nii tey jii Djibo Kala ak yeneen ak yeneen yu nga xamante ne suñu koy lim ñëw si ranch de Doli partout fu nekk Djibo a ah, marqué son empreinte si Sénégal kon boog loolu jar na li may ñaanaat lu ñu koy ñaanaat président Macky Sall man ak ñun ñëpp di ay doomi Djibo Ka ndaxte lii tey jii président Macky Sall waroon na rendre hommage Djibo Ka nag ku mel noonu mais suñu toogee cinq ñun ay doomam ñu dajaloo def su boole suñuy guy ak suñuy daqaar rendre hommage sunu papa mu nar a nag bii de première édition bi ñu bëgg si jàllale message boobu ni ko Assane waxee ENA bi ñoo ngi koy ñaan mu tuddee ko suñu papa Djibo Leyti Ka ndaxte Moustapha Niasse am na benn témoignage bu mu mësoon a def ne jibo ba mu amee bac profi nekk Vanvo dañ ne dañ koy yóbbu France moom Moustapha Niasse mu ànd ak nijaayam ñu daw gis Senghor ñu nekk kii soo leen ko yóbboo France ñu ñàkk ko fexee leen mu des fii Sénégal juba étude primaire secondaire yépp yëpp universitaire ak yëpp Sénégal fi la ko défé té kenn ëpp ko fi xam-xam nak ba ba mu fiy jóge kon mémoire am lu jar a sàmm la